maam la ci Adama ci ci ci Débarème Fall Ibrahima Souare yaa am na lu wax sax loo xam ne ni yàgg la ne bu fóot la ndaxte fàttali dafa baax nee na fii laa ko xamee waaye ni ma waxee mbokk bi dox suñu diggante nee na daal yaayu bii mu Débarème Fall moom moo ko woon parce que mbokk meen bàyyam ñu waa wax dëgg mbokk wér la nee na nijaay yaay xale bi moo ko mayoon sëñ bi nee na ko yar mu nekk xale mee ko moo yar yaay ne bareem ba mee mee ko borom kër kii moom am na fi ci solo lool trop tamit yàgg na baax ñu lay sant di la baax a baax bu baax la walaay waaw sëriñ waaw waaw ne sëriñ Ba daal foofu foofu la jaaree moom waaw sëriñ Ba daal moom yàlla moo leen lool depuis école énorme ñu def formation admin waa ENAM professionnel ak bu baax. waaw mu toog macha yaay la ne ñoom ñëpp ñoo tudd macha allah pour xale di xaaral ko faal waa kii toog mu ngi tudd Ablaye Naar Seck. magu jot sekk la ñu bokk ndey ak baay mooy seen taawu kër mooy papa Adama Fall daa am moo tax mu war a incha allah maa ngi ñëw ci moom léegi euh, Adama dafa wax toog nii di Seydina Fall mu baax bii ñu gën koo xam macha allah ci xam ni Adama ma ni nan ko sant waaye nan ko gërëm aadama nee na bala ma ko kàddu naa biral ñëpp ne xolam sedd na ci yow ndax nag da goroom waaye da ngay baayam waaye da ngay waaye da ngay xaritam nga yëkkati sa doom ju ji teg ko ci loxoom ku ne xam na ne doom jigéen xaritu yaayam la waaye xaritu baayam la nga teg ko ci loxoom te boobaag léegi macha allah dara ñaaw mais mi ngi lay ñaanal yàlla na yàlla yokk sa garaat. ci barke borom Touba xasida yi nee daal dégg na ci yow nan la jébal kàddu waaye Adama wax na ni ay collègue amit ñi ngi fi te tey ku ne xam na ni. xaadim waaw yeggalee nañ na ko baal sax mbooloo bi ndax man guddeeg bëccëg. nee na moom guddeeg bëccëg. maa jëli kii kër Bougazelli. moo jëli sama baay ba boole ma ak baayam boole koog moom. sama dëkk Ndande. ndayam Ndaat Ndaat. Ndaat. ñu baax loolu. ju baax lool. moo tax ba balaa muy sori ci wax ji. dama ànd ak samay kilifa. dafa ànd ak ay kilifaam. rawatina kilifa gu nag ñoom seen kilifa gu mag. muy nijaay Jibril Faye. muy nijaay Jibril Faye. ak Bàcc Faye. Bàcc Faye. Mo Daara. Ibo Daara. ñooñu ñooy suñuy kilifa. ñooñu ñooy suñuy kilifa. te ñu ngi ci jotaay bi. te ñoom ñi ngi ci biir jotaay bi. ma leen di beral nuyoo. mu leen di beral nuyoo. ak ngërëm. ak ngërëm. ndax ñoom day. ndax ñoom day. teg nañ ci yoonu jub teg nañu ñi ci yoonu jub bu loolu weesoo. bu loolu weesoo. maa ngi ànd ak ay baayu ndey mareem. nee na bu loolu weesoo mi ngi ànd ak ay baayu ndey mareem. ñuy samay rakk ma bokkal ndey ak baay. ñuy ay rakkam yu mu bokkal ndey ak baay. muy Wéfal. muy Wéfal. ak Mawlud. ak Maodo. ñu ngi si jotaay bi ñu ngi si jotaay bi waaye may beral nuyoo. nee na waaye mi beral nuyoo. Ibrahima Soare. Ibrahima Soare. suma goro la bu yàgg. nee na moom goro la bu yàgg. ndax bi may jox yaayu ndey mareem mii. biñ koy jox yaayu ndey mareem mii. booba ay xale lañu. booba ñoom ay xale lañu. sonaloon ko lool ci këram ga. sonaloon ko lool ci këram ga. waaye ñun ñëpp mu boole ñu uuf. waaye ñun ñëpp mu boole ñu uuf. def ñu def ñu njabootam. def ñu njabootam. lu famille Ndeye Marème xewle. lu famille Ndeye Marème xewle. lu ma xewle. lu mu xewle. mu bàyyi yitteem yëpp ñëw toog. mu bàyyi yitteem yëpp ñëw toog. kon lu ma def lu dul di ko ñaanal yàlla. kon nee du def lu dul di ko ñaanal yàlla. wér gi yaram ak gudd fan. gudd fan ak wér gi yaram. di ko wax ni gis nañ sa taxawaay. ci di ko wax nag ne gis nañ sa taxawaay. ci famille bi. ci famille bi. gannaaw loolu. nee ginnaaw loolu. muy gërëm Adama Fall. mi ngi gërëm bu baax borom bii Adama Fall. ngërëm gi ma koy gërëm. nee ngërëm li muy gërëm Adama Fall. mooy ni mu téye Ndeye Marème. mooy ni mu téye doomam ji Ndeye Marème. parce que Ndeye Marème mii. parce que Ndeye Marème mii nag. sama yaay ko yar. nee Ndeye Marème yaayam moo ko yar. sama yaay. yaayam moo ko yar. moo ko yar. jikko ji ne ci moom léegi jikko ji ne ci ndey ma sama yaay ko def ci moom yaayam moom Bourg-la-Azali moo ko def ci moom sama yaay jooju nee na yaayam jooju ndey maas fay ndey maas fay dafa bëgg njaboot lool dafa bëgg njaboot lool ba tax na ba tax na ndey mareem mii ndey mareem mii bi mu juddoo bi mu juddoo ci ay loxoom la mës a nekk ci ay loxoom la mës nekk ba ni mu déggee alxayri ba ni mu déggee alxayri ndey mareem nag nee ndey mareem nag mën naa ne nii la mën a mel. mën naa ne nee ma dem nii la mën a mel. suma doom la. nee na doomam la. tey xam naa ne yar nañ ko. waaye xam naa ne nee ma dem mii yar nañ ko. ndax moom mii. ndax moom mii. jëlee naa ko kër Cheikh Béthio. jëlee na ko kër Cheikh Béthio. ca jannatu. ca jannatul maxwa. yan ko bool bool. yan ko bool. doxloo ko ko ba biir kër Serigne Saliou. mu làkk ngërëmal Serigne Saliou. mu làkk ngërëmal Serigne Saliou. daa fekk kon moom mii. nee na moom mii. benn la woon ci man. benn la woon ci moom. bu jigéen bu jigéen. mu déggal ma lool. nee na ma ne mii mi ngi seer la déggal ba déggal bàyyam lool. waaye jàppale ma ci lu bari. waaye jàppale ko ci lu ci lu bari bari. su naa ko wax Adama Fall. nee na wax na ko Adama Fall borom këram. naa ko. nee naa ko. man de sama kër gi dina dina perturbé wu. man de ah yaa ngi jël day ma ne waaye kër gi dina perturbé wu de. ndax facture courant yi. ndax facture courant yi. facture ndox yi. facture ndox yi. lépp moo ko daan réglé. lépp ndey bii moo ko daan réglé. la preuve en est que. nee la bi mu demee. bi mu demee. léeg-léeg ma toog deux sax. léeg-léeg mu toog deux yoo xam ne. fàtte courant. fàtte courant wala fàtte ndox mi. wala mu fàtte ndox mi ñu andil ma ñu andil ma pour couper ne ah ndey ma ne manqué na fi. mu ne oh ndey ma ne manqué na fi sant yàlla. waaye lépp boo gisee bi mu sëy sëy ba léegi mosu ma fee ñëw. boo gisee bi mu demee sëy sëy ba léegi moom mosu fee ñëw su ma wooyee ñuy waxtaan nee na bu ko nee ma dem wooyee ñuy waxtaan mu ne ko waaw naka seen kër mu ne ko waaw naka seen kër mu ne ma yu mu ne ko yéene ma nag yée kër gii de kër gii de jàmm rek laa fi am papa jàmm rek laa fi am papa ma ne ko alhamdulilah papam ne ko alhamdulilah mu ne ma sama goro yi bëgg nañ ma mu ne ko sama goro yi bëgg nañ ma sama njëkk yi bëgg nañ ma sama njëkk yi bëgg nañ ma te dañ may toppatoo te dañ may toppatoo mu ne ko kon sant yàlla mu ne ko nag ah kon sant yàlla loo ñëw ci kër gi ne ko dee loo ñëw ci kër gi moom mu ne ma deel ñëw ci kër gi mu ne ko papa deel ñëw fii ci kër gi ma ne ko nag mu ne ko nag comme yaa ci jàmm comme yaa ngi ci jàmm jarul ma fiy ñëw jarul ma fiy ñëw sa dafa nekk ne papa sa papa dafa nekk mat na Adama Gaye muy alaaji Adama Gaye mat na la baay mat na la baay taxawu na la taxawu na la taxawaayu baay taxawaayu baay loolu nga ma wax loolu nga ma wax jarul ma di fa ñëw jarul ma di fa ñëw yàlla xam na ni. nee ma ne ko yàlla xam na ni. yaayu aadama yaayu Adama. tey laa koy doog a gis. tey jii la koy doog a gis. Ndeye Marème. di ma wax lu lu lu rafet ci ñoom. di ko wax lu rafet ci ji mbokk bi. yaayu Adama yaayu ak tantam ak ak ak ak tantam ji. ak tantam ji yi toog. kii. nee na kii. bi ma koy doog a gis. bi ma koy doog a gis. ca kër ga. ca kër ga Khady aji xadi jaañ dama foogoon ni daa foogoon ni moo yor moo yaay aadama daa foogoon ni moo yaay aadama wallaahi azim ne wallaahi azim ma gis nday mareem mu gis nday mareem moom ci kër gi li muy doxalee ak moom ci kër gi mu ne ko nday mareem xanaa kii du sa kii du sa goro mu ne ma nday mareem de nii rek la may def mu ne ko nday mareem de nii la may def dafay wane ni maame dafay wane ni loolu dafay wane ni téye gi ñu ko téye téye gi ñu ko téye rafet ñëpp rafetlu nañ ko maa sha Allah ñun ñëpp daa rafetlu nañ ko man daal xam naa ni. nee na moom daal xam na ni. am naa xol bu sedd. am naa xol bu sedd. doom ji. nee doom ji Ndeye Marème mi. sama yaay yar na ko. nee yaayam yar na ko. jàngal na ko alxuraan. jàngal na ko alxuraan. jàngal dugal na ko école. dugal na ko école. làkk na ngërëmal Serigne Saliou. te it làkk na ngërëmal Serigne Saliou. moo tax tey su ma ñëwee toog fii. moo tax tey bu ñëwee toog fii. ma dégg kàddu yi yëpp. dégg kàddu yi yëpp. kaddu yu rafet yi. kaddu yu rafet yii jëmale ko ci moom. jëmale ko ci Ndeye gannaaw bi ma santee Serigne bi. gannaaw bi ma santee bi. dama koy sante sama wayjur. da koy sante wayjuram macha allah ba tax na ba tax na ma koy gën a ñaax muy gën a ñaax bu mu naagu mukk day beneen bu mu naagu mukk na gën a góorgóorlu gën a la góor góorgóorlu téye jëkkëram téye sa borom kër Adama Fall Adama Fall nee naa ko da am goro boo xamee ni nee naa ko ah am nga am nga goro boo xam ni peleñaa la peleñaa la léeg-léeg bu ma Ndeye Marème wooyee nee léeg-léeg bu ko Ndeye Marème wooyee lu ko Ndeye Marème lu ko Ndeye Marème gorom Adama Fall gorom man nga xam ni sama lépp coow la man nga xam ne sama lépp coow la mu ne ma dimbali ma rek mu ne ma papa dimbali ma rek politique bi sax bi sax teg ko ci suuf <laughs> ne ma ko papa del sóor Adama Fall en tout cas pour le moment mu ne ko ah en tout cas pour le moment moo dugg ci man moo dugg ci man may doon gorom may gorom lu mu dégg rek Adama daal lu mu dégg na muñ na muñ lu mu dégg ci gorom rek na muñ waaye waaye loolu tax na loolu tax na ma sukkandiku ci moom ma sukkandiku ci moom pour sauver sama doom ji pour sauver doomam ji xam naa bu baax fu may teg sama tànk xam naa bu baax moom buggaa nee na xam na baax fu muy teg tànkam ndax Bougazelli. nee ndax Bougazelli. boo ko déggee. boo ko déggee. coow li tur bi rëy na. coow li tur coow li tur bi rëy na. tur moo tax. nee moo tax. may sóor lu bari. moo day soor lu bari. ngir sama njaboot. ngir njabootam. may jeexale daal. nee fi muy jeexale daal. gannaaw sëñ bi Mbacke maa ngi lay ziar. sëñ nee na sëriñ Mourtala Mbacke maa ngi lay jox sa wàccuwaay. Mbacke Balla. bu ngaa nee na mi ngi lay jox sa wàccuwaay. di la ñaanal jàmm mais mi ngi lay ñaanal jàmm barke Balla di ñaan sa barke maam di ñaan sa barke maam Serigne Bara yàlla bu mu nekk suñu mu jëltalu jotaay suñu gise bii yàlla bu nekk suñu mu jëltalu jotaay mais daal mu bëgg ngeen xam ni nee na daal bëgg ñu xam ni sama sa goro nday mare mii lool sant na leen lool benn doom bu jigéen la ne benn doom bu jigéen la am nday mare bi muy am 15 ans bi muy am 15 ans ci lay doog am rakk bu jigéen bi muy am 15 ans ci waaye moom mu teel a xam boppam. nay ma dem teel a xam boppam. yar moom. nee na yar moom. def nañ ko ci moom. yar moom def nañ ko ci moom dëgg la. mère Faye. mère Faye. yar na ko bu baax. yar na nay ma bu baax. moo tax it tey. moo tax it tey. su ma waajur la su ma yaay la. mooy waajuram yaayam. dinaa ko ko sante. dana ko ko sante. di gërëm yaayam tamit. nee di gërëm yaayam tamit. ndax yaayam. yaayam. ba mu ko juree. ba mu ko juree. taxawu na ko. taxawu na ko. wuuf na ko. wuuf na ko. tett na ko. kon tey kon tey bu demee ba lii am bu demee ba lii am bu ñu def lu dul sant yàlla bu ñu def lu dul sant yàlla di sant mbooloo mi fi teew di sant nag mbooloo mi fi teew yëpp Adama Fall nag Adama Fall nag ci moom laay jeexale ci Adama Fall lay jeexale na xam ni na xam ni sant naa ko na xam ni Adama nag xam ne bugaa nee na sant na ndax bu dul dara nee na nag bu dul dara Adama Fall pour mu nuyu ma xool ma sax Adama Fall pour mu nuyu ko xool ko sax problème la ci moom nee na problème la ci moom bu ñëwee kër ga. ne bu Adama bu ñëwee kër ga. mënuñoo toog ci salle bi bu 10 minutes mu toog moom ak moom. mënuñoo toog ñoom ñaar 10 minutes ñu toog ndax kersa ndax kersa ndeysaan te ma gis yar boobu ci moom mu gis yar boobu ci moom maa ngi ñaan seen sëy bi ndax mu nee na ngi ñaan seen sëy bi ci barkeb Serigne Saliou ko moom daal damay seere ni moom daal mi ngi seere ni kontaan naa kontaan naa tey ci lii ñu témoigné tey ñu témoigné nday ma ma ndax tey bu meloon neneen ndax tey bu meloon neneen buñ ma woowee sax dama naan ak tudd du ma ñëw buñ ko woowee sax day am kersa ñëw waaye nee na waaye li naan doom ju sagal ndeyam naan doom ju sagal ndeyam sagal baayam ah moom de def na ko ah demem def na te loolu day yéene ko confirmé loolu day yéene ko confirmé waaye loolu waaye loolu yëpp nee na waaye loolu lépp maa ngi koy sante sama yaay mi ngi koy sante yaayam ndax moo ko yar ndax moo ko yar day baas fay day baas fay mooy suma waajur mooy waajuram bu jigéen moo yar Ndeye Marème moo nekk ci moo li nekk ci Ndeye Marème lii nekk ci Ndeye Marème moo ko def ci moom ko def ci moom yar gi ne ci ñun yar gi ne ci ñun moo ko def ci ñun moo ko def ci moom lu ñu def lu dul ñaanal ko ne lu ñu def lu dul ñaanal ko yàlla may ko wér gi yaram a gudd fan yàlla may ko wér gi yaram ak gudd fan moom de mooy suñu gàllaaj moom day mooy suñu gàllaaj may seede mbooloo mi ne muy seede mbooloo mi sama waajur waajuram bu jigéen bu jigéen mi ngi ci mbooloo mi toog mu ngi ci mbooloo mi toog sant naa ko sant na ko gërëm naa ko ne gërëm na ko te it maa ngi koy ñaanal mi ngi koy ñaanal yàlla gën ko fee bàyyi yàlla gën ko fee bàyyi amin amin may jeexal sama kàddu ne mi ngi bëgg a jeexal kàddoom jëmale ko jëmale ko ci ñii ma àndal ci ñii mu àndal mel ni Aïda Seck ku mel ni aji Aïda Seck ak sama yaay eh, ñay bi yaayam ñay bambi bu baax mi toog ñoom ñi ñëpp day nee na ñoom ñi ñëpp day heure bu ma jógee ñu jóg heure bu ma jógee ñu jóg moo tax tey moo tax tey bu ñu ñëwee fii bu ñu ñëwee fii mënu maa jël kàddu mënu jël kàddu ba jeexal ba jeexal du ma du ma leen sant te du leen sant dañoo bëgg it sama waajur dañoo bëgg it juróom kon tey kon tey maa ngi leen di sant mi leen di sant di leen gërëm di leen gërëm waa kër Adama Fall. nee eh, waa kër Adama Fall. Eh, suma doyen Gaye. doyen Gaye Gaye. Eh, Adama Gaye. Adama Gaye El Hadj Adama Gaye. mat na lu mu doon. mat na li mu doon. yal na taxawaayam yàgg. yal na taxawaayam yàgg. yal na taxawaayam yàgg. yal na taxawaayam yàgg. ndax kër gi. nee ndax ndax kër gi. ndax kër gi. tey. tey. ñëpp boo bokk seere. ñëpp bokk seere ni. wax benn wax. wax benn wax. te wax jooju ñuy wax ci moom. nee wax ba mu wax ci moom. ci mbaaxam. ci mbaaxam. ci yaatoom ci yaatoom ci julliteem ci julliteem ci bëgg nit ci bëgg nit nday maram bi wax na ma ko nday maram bi wax na ko nee loolu yokku na ci nee loolu yokk na ci sama tànk mosuma ko teg fii tànkam mosu koo teg ci kër gi maa ngi leen di sant mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen gërëm di sant sama goro di sant goro Adama Fall Adama Fall di ko gërëm di ko gërëm ñaan yàlla defal leen jàmm ñaan yàlla defal leen ko mboolem jullit defal ko mboolem jullit asalaamaaleykum